asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen di ziar baax a baax euh, vidéo tay bi nag euh, euh, courrier AdSense la waaw xam naa dinam ba beneen vidéo bu dugg bi ñu leen wax dañ ko dugg si lundi bi muy introduction formation bu bees bi ñu bëgg a muy YouTube de zéro à monétisation ni ngay commencé YouTube de zéro ba monétiser waaw vidéo bi dina dugg xam naa ci journée bi incha allah rabbi muy introduction bi ah, a baax ah, parce que moom mooy lancé li nga xam ne mooy playlist bu bees bi ñu ko def wala formation bees a def ah, ci koo jox seen ay borom pour faciliter leen ko la xam naa soo beesee ci seen bi peut être yi mën na la jaaxal mais amul benn problème loolu yëpp di dem ba di xam lu tax courrier yi di ñëw incha allah voilà euh, bul bul yàkkamte rek voilà Euh, courrier bi si njëkk moo ngi nekk Mamadou Ka Mamadou Ka courrier am ñëw na beneen bi si topp Abdou Gassama Abdou Gassama tamit euh, courrier am ñëw na bi si topp GMK de Wish moom tam courrier ñëw na voilà xam naa turu bi la ci bind. Euh, beneen bi si topp di Mbacke Ndiaye Mbacke Ndiaye tam courrier ñëw na Mbacke Ndiaye nag deful numéro téléphone xam nga courrier toujours dañuy demande nit ñi ñuy def ci ligne 2 bi seen ñuy ajouté ci seen numéro téléphone mooy fi ñu bind BP 26 727 bi voilà benn benn nag des fois duñ ko respecté yi ndey jafe-jafe. parce que li li tax mooy suñ moo suñ moo contacté wul du ma leen mën a contacté loolu lay day loolu day posé problème quoi voilà. Euh, beneen bi si topp muy bu mujj bi muy góor gi 6 góor gi 6 tamit waa courrier am ñëw la courrier yi ñooy li fi ñëw euh, kon ci wàllum courrier AdSense suñu la jox rendez-vous booy yeneen courrier AdSense incha allah rabbi jërëjëf.